أبى الله أن أصوم إلى غير سيدنا إمامهما ميزاك أحمد التجاني bay tàmbale suñu wax ci toru borom bi subhanahu wa taala borom yërmande gu yaatu gi ci àdduna ak alaxira di defal kum ko ku ko le ci alaxira ñu ngi ñaan yàlla boole ñu boole ñu ci ñu ngi koy sant moom borom bi subhaanahu wa taala ci mboolem xéewalam yeeg mboolem jagleem yépp salaatu ak salaam yàlla nekk ci ki nga xam ne moom la ñu yàlla tànnal muy gën ji mbindeef ak waa këram yu laab yi gannaaw loolu mbokk yi ñu ngi nekk ci weer wu màgg boo xam ne sax mu ngi waaj a jeex di taxoon ñu yéexal xutba yi sax loolu la mën nañ ko def xutba bi ak bi ci topp lépp ngir wax ci loo xam ne lu màgg la loo xam ne moom la yàlla borom bi subhaanahu wa taala defal yenente bi lim ko defal lepp lu mag la waye li aussi tam lu mag la ci lim ko defal muy rañaan gi ko rañaan jele ko màkkatal mukarram yobbu ko fele nga xamne ne masjidul aqsa ci baytul maqdis ta suñ mbokk plastine yi ñu len fay rey jullit yu bari xamuñ sax num demé ñukoy sétan ñuy xex xex bu metti ñu len di ray di ray seen njabot loolu yep leen tax a aar li nga xam ne nii moom mooy masjidul aqsa borom bi subhaanahu wa taala wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne ko man alquran heure boo déggee subhaana xamal ne li muy tudd dafa rëy maa ngi tudd ak sell ak yàlla li muy tudd dafa rëy te moom mi ko def moom kese moom moo ko mën lu yéeme na nag parce que nit ñi ay temps boo leen koy expliquer sax am na ñoo xam ne dañ ciy dute te alquran ko wax te lu yomb gëm la ndaxte yow rek boo doon tukki jóge fii nii masalan war a dem Dakar boo waree ci mbaam ki war oto moo lay gën a gaaw foofu mais ki dugg avion diggante Kaolack Dakar moo lay gën a gaaw foofu mais bi fekkee ne nag tukki gi ki koy def moom mooy borom bi subhanahu wa taala moom mi jox doomu aadama xel ba mun a defar oto ba mun a defar avion moom ay mbiram bu commencé règle dootu ci amati temps dootu ci amati place dootu ci amati moo tax moom moo ne subhaanallazi asra bu fekkoon ne def ne subhaanallazi suritu man man maa ko defal sama bopp sax bu boobaa mun nañoo xool mais yàlla moo ne asra man maa rañaan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee ko fan bi abdihi jaamam bi laylan guddi après danañu wax wax lan moo tax waxut tarfa ci ni mu gën a gaawee une seconde mais def ne guddi parce que lool noonu boroom xam-xam yi am na ñu ko utiliser pour wax la ne yenente yàlla di rañaan da ko ràññaanee ci ruux ak jëmmam loolu bokk na ci dalil yi nga xam ne dañ koy utiliser waaye loolu taxu ñu jóg leneen tey dañu leeral leneen mu ne man maa ko ràññaanee jëlee ko masjidul haram mooy ca makkatal mukarram yóbbu ko ca masjidul aqsa ba nekk fële ca Palestine foofu nag yàlla nee na dakaa barkeel dafa barkeel lépp lu ko wër lan moo yàlla def loolu mu ngir ñu won ko suñ kéemtaan yu mag yi ngir ñu woon ko suñ aay innahu huwa samiul basir yàlla mooy kiy dégg mooy ki nga xam ne moom mooy gis yemul ci loolu kese yàlla da kaa jëlewaat baytul maqdis gannaaw ba mu fa jiitee yonent yëpp ngir wane lan li yàlla yónni ci yonent yëpp li mu leen yónni ñoom ñëpp benn la mooy laa ilaha illa allah benn la leneen li mooy lan ngir wan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñoom ñëpp yow yaay seen njiit yow yaay seen imam motax ñun ñu nekk ngeen ji xet motax bam démé ba fofu mu jité leen mais après dafa génn fofu yàlla jëlé ko nak fofu non nga xamné moy masjidul aqsa yóbbu ko ila sidratil muntaha fa nga xamné ne kenn mënu fa dugg fa nga xamné fa la lépp jéxé fa nga xamné amul ayna amul kayfa amul dara ta physique léppay taxaw temps léppay taxaw fofu la ko borom bi subhanahu wa taala yóbbu te loolu likay leral moy suratul najmi bi nga xamné ni yàlla mu ngi wàcc biddéew te maa ngi waat ci biddew yi heure bu sooyee wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ku nekkul kuy waxantu lépp lu mu wax mën naa ko ko waxloo ci biir saar bi mu ngi wax bay wane jibril ak taaram ak doyam ak ak màggaayam ak doolem bi nga xam ni moom la am mu koy melal ci saar bi di won yonent bi sal di wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na jibril sat ko yenen yenen yon benen yon amna borom xam-xam sax ñu ci ku ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bir aaya yi mun nañ ne wax ne gis na borom bi subhanahu wa taala parce que am na yeneen hadis yu koy leeral ne wala benn wéykat bu ko wéy ne Moussa bu ko yàlla wooyee fële nga xam ne mooy ca montagne ba def ne ko sumil sa dàll yi mais fee nag moom def ne ko yow yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jege si ndaxte yow yaay gën ji mbindeef ca sidratul muntaha kon loolu lu jara bàyyi xel la li tax mu jara bàyyi xel mooy lañ farataal yenent bi ca ca ca ca guddi googu noonu te danañ ci egg incha yonent bi jàngal ñu ci benn xadis boo xam ne ibnu abbas moo ko solo mu ne guddi gi nga xam ne ni yàlla rañaan na ma ci gis naa muusa muusa yonent bi ne gis naa ko mu nekk ab góor yàlla boo xam ne guddul gàttul non dafa gudd lool dafa njool mais itam koo xam ne la dafa ñuul weexul ñu xeesul dafa ñuul boo ko gisee da mel ne ku gis benn góor ci waa sanua benn xeet la goo xam ne ñu nga ñu nga ca yaman mu ne ma gis isa alayhi salaam mu nekk koo xam ne moom it digg doomu la njoolul gàttul ñuulul xeesul bopp bi nag karaw gi dafa sëq ma gis ki nga xam ne moom mooy Malik mi nga xam ne nii moom mooy garde safara yonent bi waxaan ñu ci beneen xadis ne ba ma waa dëkk bi weddee waa Quraysh si weddee ne man daw ma fa nga xam ne ni moom mooy masjidul aqsa yàlla dama wan Baitul maqdis dama won masjidul aqsa lepp lu luñ ma laaj rek ma tontu len mu melne mang koy gis li tax ñuy gëna fédalé né bi da ko rañané ci roh ak jasad comme ni ko yenn borom xam-xam yi waxé moy wa makka yi nga xam ni dañu am sen benn gertu go xam ne tukki won ba ñu ñibbisi dafa nanon ci sen ndox ma ta bu fekkoon ne ruux kese la du nan mais jëmm ja tax mu nan waye comme ni ko waxé lolu taxu ñëw juk benen yoon inshallah allah danañ ko gëna léral kon bokku na ci kawte fi mag yi nga xamné ni yenen yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jaglél nako ko moy li nga xamné mom moy isra ak mi'raj isra moy tukim suuf mi mi'raj moy tukim jugé ci suuf dem ca jawuja dem ca fa nga xamné ni moy sidratul muntaha buñ waxé isra nak moy tukki go xamné ne guddi lay xew yàlla jëlé ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam makka yóbbu ko fi nga xamné ni mom moy masjidul aqsa mi'raj nak mooy yëkkatiku yéeg jóge ci suuf jëm fa nga xam ne nii mooy sidratul muntaha lu tax borom bi subhaanahu wa taala def ko ñun ñëpp xam nañ ne ñu bi sallallahu alayhi wa sallam lu la doon dund gannaaw ba nga xam ne ni ñëw na di woote ci lislaam amul luñ ko defut mook ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ko gëmoon loolu nag diire ba mat fukki at ak ñaar wala fukki at ak benn fukki at ak benn yooyu yëpp ñu ngi koy sonal di ko teg xeetu coono yu nekk moo xam ci wàllu bakkanam la boppam la moo xam ci wàllu social la moo xam ci wàllu économie la dem nañ sax ba barigaat barigaate ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam séese ko mook ñi nga xam ne ñoom ñooy banu hashim ñi nga xam ne ñoom la gën a jege ci waa famem ñu ne leen yéen dootuñ jënd ci yéen dootuñ leen jaay dootuñ takk ci yéen dootuñ leen may soxna dootuñ toog ak yéen dootuñ dugg seeni kër dootuñ wax ak yéen yéen daal dañ leen a ber dañ leen di ber fële lekk sax dootul leen ko jëlee ci ci ci ñun mu nekk loo xam ne lu métti la barricade gu méttee méttee métti coono googu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi na ko te ñi mooy ay mbokkam ñi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy mushrikina yi mais bam kañ la gën a métti ba mu gënee métti mooy ba nga xamee ni soxnaam su baax sa génn na àdduna muy sayyidatuna Khadija alayhi salaam ko nga xam ne moo nekkoon ndimbalam goo xam ne moo ko doon dimbale ci wàllu wàllu yu baree bari bu gën a métteeti ba nga xamee ne bàyyi taxam bi nga xam ne moo taxawoon ci kanamu noonam yi doon défendre ne kenn du ko fi laale muy Abu Talib moom it ba mu génnee àdduna mu nekk lu méttee métti yonent bi ci boppam moo tuddee at moomu noonu amul xuzni atam njàqare mi moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa tuddee parce que liñ ko doon teg yëpp bu fekkoon ne cent la dañ cee dolli yeneen cent bu fekkoon ne mille la dañ cee dolli beneen mille muy deux mille dañ ko doon teg dañ koo gën a méttital yonent bi ba mu demee xam ne ñii kat mënatuma ci ñoom dara mu ne xaaral ma génn dem uti wallu dem uti ndimbal ci beneen xeet goo xam ne ñoom ak ñi ñoom ñoo tolloo doole muy waa banu saqif ñu nekkoon ca taif mu daal di dem foofu mais ba mu demee foofu woo leen ci yàlla wax leen li ko xam ne moom la ko yàlla yónni ki nga xam ne moom mooy abdu yaa layl lan la def wala ñaar ci ñoom dañ ne ko yow bu fekkee ne li ngay wax dëgg la yàlla moo la yónni yow ku danger kon yow duñ la déglu keneen ki mooy moom dafa ne ko yow sax man dama amul sa jot sax ba lay déglu yow mu ne leen kon na ngeen ma nëbbal li ma leen wo bu leen ma def dara bàyyi leen ma dem defu yamuñ ci de ñoom dañu ko dem boole ko seen dof yi ñu koy sànni xeer ak ba tànkam yi di nàcc kim àndaloon muy xaaris ibnu xaaris moom it dañ koo ba dara ji di wol yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi dem ba ci fi nga xamne mom lañ doon tuddé mir bi nga xamne ne Utba Shayba ibn Rabia ñom ñoko momon mu daldi fa wëru commencé ñaan ñaan boroomam nan ko allahumma ilayka ashku dufa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila baidin yatajahamuni aw ila udwin malakahu amri in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla ne ko yàlla maa ngi lay jàmbat sama néew doole ak sama ñàkk pexe ak sama doyadi ci nit ñi te yonent bi doyewul doyadiwul yow mi nga xam ne yow sa yërmande moo yaatu ci lépp yow yàlla yow yaay borom ñi nga xam ne ñoom ñoo lot yaay sama borom ci kan laay wéeru damay wéeru ci koo xam ne dafa sori koo xam ne damay sonal wala ab noon boo xam ne danga koo jox samay mbir bu fekkee ne merewoo ma yow yàlla bu fekkee ne yàlla merewoo faalewu ma lenn lépp luñ ma teg baax na almuhim mën naa am sa ngir ngirmaande kese ba mu ñaanee loolu rek ci hadith boo xam ne sayda Aïcha moo ko nettali mu ne jibril dafa wàcc ànd ak malaaka mi nga xam ne moom moo yore doj yi mu ne ko yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal rek bu lay neex léegi ma boole waa taif mooy banu saxif ak waa quraish ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon Màkka ma boole ñaari montagne yi ñoom ñëpp ñu dee bu doon ñun yàlla looy xaar lañ koy wax malaaka mi na gaaw waaye du ñun borom xol bu yaatu bi la nga xam ne yàlla nee na moom mooy rahma lil alamin kàddu bi yërmaane ñeel mbindeef yi lan la tontu mu ne yow yàlla dama bëgg ëllëg nga génne ci seen ndigg yi ñoo xam ne dañuy taxawal sa diine taxaw di jaamu borom bi subhanahu wa taala loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan kon nit war nañ di loolu ci loolu noonu même bu méttee trop looloo tax ñooñu keroog mbugaluñ leen mais la yonente bi bëggoon am na parce que ñoom seen doom yi après ñoom ñoom mujj a taxawal li nga xam ne nii moom mooy moom mooy lislaam ci hadis boo xam ne Buxaari ak muslim yëpp génne nañ ko kon loolu bokk na ci li tax yàlla defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cadeau bu rëy boobu moo tax ba mu delloo Màkka nekk koo xam ne mënulul boppam dara kenn moom moo ko nangoo accepté mooy Mutaim ibnu Adi te kooku yéefar woon moom moo ne ko kaay nga dugg Màkka ba kenn laal mu daal di dugg màkka kenn ñemew ko wona jégué ba ni nga xam ni mom la isra ak mi'raj amee kon ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu yok suñu bëggel ci yenente bi salallahu alayhi wa sallam bokk yi gannaaw bañ santaté borom bi subhanahu wa taala julli wat ci yenente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw choono yi nga xam ni daj nako yëpp mom yenente bi salallahu alayhi wa sallam ak muñ gi nga xam ni muñ nako yépp yàlla ne ko nak dama lay bil buntu asaman yëpp te loolu moy kemanu isra ak mi'raj ngir wala ne yow ku dëggu nga ci li nga nekk mais jox la kado boo xam ne kadob yàlla la kado boo xam ne dana fomp sa mbooleem njàqare yépp dana la teggil sa mboolem coono yi nga xam ne nii moom nga dajoon lépp kado boo xam ne dana la yóbbu ci àdduna ci monde boo xam ne moo gën a yaat moo gën a laab monde boo xam ne fa la sidratul muntaha nekk monde boo xam ne fa ngay gën a jege ki nga xam ne nii moom mooy borom bi subhanahu wa taala te loolu mooy isra ak mi'raj gannaaw ba yonent yëpp yàlla yëkkati ko yóbbu ko ci fi nga xam ne nii moom mooy miraaj bi mu commencé nag dañu indi xadis bi nga xam ne nii anas moom moo ko solo xadis bu gudd a gudd la ñu am lu ñu ci dagg rek solo ko anas ibnu malik jëlee ko ci malik ibnu sansa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen nettali ne bis bi nga xam ne ni moom lañ ma ràññaanee jëlee ma ci suuf ma yëg ca kaw dañ maa indil benn loo xam ne moo gétti baxa la moom moo gën a gàtt baxala mais moo gétti mbaam moo sut mbaam mais baxla moo ko gën a mberkel moo ko moo ko sut ci laa yéeg bu weex tàll jaaroon toogoon fa nekk loolu xanaa moom mooy alburax mu ne ko waaw loolu moom mooy alburax mu ne ba ma ci yéegee fam bët ba yem fa lay teg li nga xam ne nii moom mooy catu tànk ba mu ne ma daal di ànd ak jibril ñu daal di dem ba ca asamaan dañ koy tënk rek ba ca asamaan si nga xam ne ni moom mooy asamaanu adduna bi premier asamaan si bañ fëggee ñu ubbil ñu ñu daal di dugg ne kan moo kan mooy fëgg ñu ne ko Jibril la kan nga kan nga àndal comme yàgg nañ koo dégg hadis boobu noonu ñuy woy daanaka moom la ñuy woy ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallama moom laa àndal ñu ne digaluñ kenn ñu ubbil ko kudul moom mu ne ba ma duggee ma fekk fa ki nga xam ne ni moom mooy Adam heure bu gestoo ci ndeyjooram day ree mais heure bu gestoo ci càmmoñam day jooy yonent bi laaj jibril waaw lan moo tax muy def lii mu ne heure bu gestoo ci ndeyjooram day jooy parce que day gis doomam yi nga xam ne yëpp aljana lay jëm mais bu gestoo ci càmmoñam day jooy parce que day gis doomam yi nga xam ne nii safara lañ jëm mais ba yonent bi egsee ci moom mu daal di ko nuyu tatakal ko ne ko exil yow ki nga xam ne yow yaay doom ji gën ci doom yi mais itam yow yaay yenent bi gën ci yenent yi ñu continuer dem ci asamaanu ñaareel fekk fa ki nga xam ne nii moom mooy yaxya alayhi salaam ak isa yàlla boole leen fa ñoom ñaar parce que ay doomu nijaay doomu bàjjan lañ yenent bi daal di leen nuyu ñu daal di ko tatagal ne ko yow yaay ki gën ci yenent yi yow yaay ki gën ci mbokk yi al aqu saalih wa nabiyu saalih ñu continuer dem ci asamaalu ñetteel daal di fa fekk ki nga xam ne nii moom yusuf alayhi salam yenent bi ne ba ma ko gisee yàlla da kaa jox xaaju xaaju li nga xam ne nii moom mooy ñu continuer dem fi nga xam ne ni mooy asamaanu ñeenteel fekk fa ki nga xam ne mooy nabiyullahi idris yonent yàlla idris ki nga xam ne moom moo njëkk a ñaw moo njëkk a bind mu tatagal yonent bi ne ko marhaban bil aqi saalih wal nabii saalih ñu ngi lay tatagal yow ki nga xam ne yow yaay mbokk mu baax mi ak yonent bu baax bi ñu continuer dem ci asamaanu juróom juróomel fekk fa ki nga xam ne mooy nabiyullahi haaroon moom it mu tatagal ko ko mbokk mu baax mi yënant bi gën bi noonu lañ ko continuer ba ci asamaanu juróom benneel bi fekk fa ki nga xam ne nii moom mooy saydna moussa alayhi salaam moom it mu tatagal ko daal di ko ne marhaban bil aqi saalih wa nabii saalih mais nag moussa moom daa jooy ñu ne ko am moussa yow lan ngay jooy mu ne damaa xam ne kii man maa ko jiitu ci àdduna ci zahir mais moom lim am man mënu ma am parce que moom li muy dugal aljanna man mënu ma koo dugal aljanna daanaka xeetam bi mën naa ne genn wàll gi ñëpp danañ dugal dugg àjjana te man sama xeet bi li ci ëpp safara safara lañ jëm mu daal di continuer yéeg fi nga xam ne ni moom mooy asamaanu juróom-ñaareel bañ fa demee ñu ngi ko fekk suñ maam ibrahima alayhi salaam mu daal di ko nuyu tatagal ko ne ko yegsil yow doom ju baax ji yegsil yow ki nga xam ne yow yaa gën ci yeneen yi ba pare nag ne ko booy dellu nga ma nuyul sa xeet wi te nang leen wax ne aljanna kër gu neex a na nañu góorgóorlu ba ñoom ñëpp ñu ñëw ci aljanna jooju parce que mérite bi ngay am moom mooy nga dem aljanna mérite bi doomu aadama di am moom mooy mu fexe dem aljanna kon nañ fexe ñoom ñëpp ba ñëw ci aljanna noonu lañ continuer ba jibril yem fi nga xam ne nii fa la war a yem parce que mënatuloo continuer yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daal di continuer moom donc mais ca ibrahima ga fekk nañ fa fi nga xam ne ni moom mooy baytul maamur te baytul maamur mooy kër gi nga xam ne wala néeg bi nga xam ne moom moo jàkkaarloo ak kaaba gi jour soixante-dix mille soixante-dix mille malaaka ñoom ñoo koy wër xa ba yàlla bindee kenn xamul kañ la ba léegi soixante-dix mille yooyu noonu ñoom ñooy wër taaba googu noonu te ku dem doo dellusi ku wër kaaba gi yow pare nga ci doo ñëwaat kon malaaka yi ñaata lañ kon doomu aadama yi ñun nañ xoolaat suñu bopp jàpp na ñun duñ tus duñ dara ku bindul toll noonu nga nekk ci kaw suuf te kaw suuf si nii comme pepp pepp bu ndaw a ndaw a ndaw bu ñu ko jëloon teg ko ci li gën a rëy loo yaakaar nga jël pepp bu ndaw teg ko ci adduna bi mun naa am la toll léegi yow mi nga xam ne yow yaa dëkkee adduna boobu yow nan nga toll ba war a jàpp ne yow yow ku ngande ngande nga doomu aadama yi ñun duñ dara dañ dellu ci borom bi subhanahu wa taala kon ba eggee ci sidratul muntaha fekk muy garab goo xam ne meññeen mi mu ngi toll ne ndaa xob yi mu ngi toll ne noppi noppi noppi ñayi noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melale mu am ñeenti déeg yoo xam ne ñoo ñoo fay wal ñaar mu ngi jugee aljanna direct ñeneen ñaar yi nee nañ moom mooy niil ak furaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu jox ma fa ñaari ndab benn ndab boo xam ne ndabal sàngara la ak benn ndab boo xam ne ndabal meew la ñetti ndab ak benn ndab boo xam ne ndabal lem la ma tànn li nga xam ne ni moom mooy ndabal meew mi jibril ne ma tan nga fitra wala yalla ne ko tan nga fitra fitra moy lan moy lo xamne ne lu jub la lu bax la mu ne boo tànnoon leneen lu dul lii sa xet wi danañ danañ danañ bew yonent bi nañu faratal ci man li nga xamne mom moy julli juroom fukki julli la won yalla faratal ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñun heure buñ taxawé ci kanamu borom bi subhanahu wa taala di julli ñu ngi isra ñu ngi mi'raj bu fekke ne yow gëmé nga ko noonu boko gëmé wul nak nang koy parax paraxé mu jeex mais heure boo taxawee ci kanamu borom bi subhanahu wa taala di julli nga xamné yaangi ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fan ci isra wal miraj yaangi fan yaangi sidratul muntaha yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne bam ko farakalé ci man lu nek farakal nañ ko ci man mais jibril ma ko indil bam dess julli ndax julli da foor motax yàlla indi mo ba ci mom farakal ci man julli kon nañ ko respecté bu baakha baax yonente bi ne juróom fukki julli la won bama ñëwé ci Moussa mu ne ko lañ lañ la jox mu ne juroom fi julli mu ne ko demal na la ko wañi sa xéet wi attanuñ ko sama xéet wi leen ëppoon doole te lañ dañ leen doon digal daawuñ ko def Moussa dal di ne ñaan borom bi borom bi wàññil ko par fukk par fukk par fukk bam dess fukk Moussa ne ko nako wañi waat mu ñaanat borom bi borom bi waat ko bam dess juroom Moussa ne ko nako wañi waat ba léegi da bari mu ne ko rusna nak di ñaanat borom bi subhanahu wa taala li nga ni mom la wañi muy juroom yi nañ ko doylo yalla ne ko farataal naa ci yow juróom fukki julli tiyaaba ji tiyaaba ji moom mooy wàññil naa la ko moom juróom boo jullee juróom dangay am tiyaabo yu juróom fukk boo jullee juróomi julli da ngay am tiyaaba yu juróom fukk parce que man dogal naa ko ba pare te man nekkuma koo xam ne damay nay di wàññi li nga xam ne nii moom laa jagleel li nga xam ne ni som ñoom ñooy sama sama mbindeef yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tukki moomu gis na ci ay xeetu kéemaan yu dul jeex incha allahu ci beneen xutba danañ ko gën a leeral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 Tijani